ahlan bikum député yu Sénégal yi fa ñoo fas yéene daas paaka bi leen nar a rendi ci assemblée nationale ni ki tey wal fa fajiri yéene kaay ne député yi kay tey fa ñuy xaru ndax article quatre-vingt coppite gañ ca bëgg a àndi suñ ko defee mooy ne njiitiram Macky sàll waxtu ko neex fay tas assemblée nationale bi te su boobaa fa ñuy waya di ba tax duudu wàdd bu PDS ne faay artu député yi te faa bëgg ñu lànk bañ ba tëdd ca naaj wa bu ñu wotee coppite yi nar a àndi ci article quatre-vingt-sept bi ndax loolu catastrophe la nar a nekk musiba naaru laay ci ñoom sañ-sañ njiitëra Macky Sall mu tas assemblée nationale Abdoul Mbaye feelu ko ne faay xaaye député yi bu ko wotee Thierno Alassane Sall mais ni ko daan ko yoroon sa xol sedd man de faa ko xalaatuta wote sax vox populi ne procès de loi boobu fi mu toll fa jur coow ci réew mi ndax gars yi fa ñoo wax ne bokkutoon ci liñ déggoo ca dialogue national ba léegi njiit mi fa ko bërëxal ci biir bëgg gars wote waale ko waaye yéene bi na faa ragal ne ba moytu fañ koy rocci de l'observateur na ko faa koy dëggal njiit réew Macky a rocci procès de loi boobu jëm ci article 87 boobu mu toll ni Thierno Alassane Sall ak ñeneen fa ñoo ko wote info yéene ne ñoo xam ne fa ñoo jóg di sàkku ci député ñu freiné njiit réew Macky Sall taxaw ca kanamam na ko xalaa mandir bàjjo xalaa doo fi jaar ak sa article 87 bi si du quotidien ne waaye nekkut article boobu ñu bëgg soppi rek moo tax tey ñu woolu député ci assemblée ba déedéet xam na yeneen procès de loi fa ngay xool procès de bi tax Karim Wade ak Khalifa Sall mën a bokk ci wote 2024 coppite yi ci code électoral bi boobu it fañ koy wote tey ba ci sax parrainage bi Bougane Gueye Dany na leen xëy faa bëgg député yi xam ne njiit réew Macky Sall mii fa bëgg a tas assemblée nationale lépp ngir Benno Bokk Yaakaar des nekk ci nguur gi après 2024 xana moo tax ba léegi waxut turu ki nga xam moo ko war a remplacer candidat Benno Bokk Yaakaar bés bi yéene kaay na tey ca assemblée député yu Benno Bokk Yaakaar ñoo nar a ànd ak yu taxaw ya ak yu wàllu joxante loxo ngir ñàkkante ak député yeewi a yéene yi fa ñoo nar a jaxase tey assemblée boo xamante ne tey Birame Souleye Diop nekku fa te moo leen Populi na ko voilà Ousmane Sonko moomu ngay wax nag samedi bi weesu fa woote woon sénégalais yi ngir ñu amal concert casserole waaye samedi bi huit heures jotee ba tegal fanweeri simili Sénégal réew mi fépp a doon riir foo tollu dégg kacax kacax cax cax ak pimpimp ji vélo jakartaay ak oto yi ku daq dàq kornu sa morom nga ne kii la yor yor yéen kaay na sénégalais yi kaay dégg neen Ousmane Sonko wooteem bi ta jëfee nañ ko diiwaan yëpp Sénégal ba ci dëkk dëkkaat yi askan wi fa ñoo génn tëggam bool moo xam ne foo toll di ko dégg yéen kaay bi ne fañ cee boole nag ay jeu d'artifice maam ay pétard yoo xam ne fañ koy taxal tàkk di kalaata ca kaw diwaanu Thiès nag ñoo jël raw gàddu gi yéetéet te mooy yéen a kaay na ko foo fàtte Mbour Ziguinchor nag l'observateur ne concert casserole bi Sonko woote wax dëgg yàlla fa cee xam ndam lu rëy naka noonu anniversaire am bi validé na gars yi fañ ko validé ay farandooram ya nekk ci réewum France Paris fa ñoo amal investiture samp seen mbër 2024 muy Sonko ci mbooloo mu bari Dakar Times ne Baye Mbaye Niass moom fa investi Ousmane Sonko ca Medina Baye Niass Kaolack Ndangaan yow fa ngay xool njàngum alquran moom la fa xamal moom mi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu massification ci mouvement doomu daara yu patriote yi moo daab li tax nag mu tàmm wàcce ay kaamilu alquran mooy ñaanal Ousmane Sonko wér tal bokk ci wote yi ba pare jiite réew mi naka noonu tamit ñi nga xam ne fañ leen a jàpp tëj kaso te politique a tax nekk ay patriote ñu bàyyi la ñu génn man moom faay génn foofu dem ci vox populi fekk fa El Malick Ndiaye bu Pastef fañ koo teg loxo jàpp nañ ko de patriote yi nag nee nañ xamuñ tax ñu jàpp ko léegi su ko yéene kaay na ko maa leen wax El Malick Ndiaye jàpp ko waaye audio boobu foo la maanaam baaxul du moom libération ne pourtant wax de ca kanam enregistré moom El Malick fa leen wax ne audio bii ngeen di dégg montage la ndax fa ñoo dégg mu cay wax naan ndaw ñi faa leen di xoo wote projet de loi war a amal ni ki tey ci altine ci assemblée nationale ngeen fexe ba bu am <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne daa benn bokk yaakaar am na ñeenti ñoo xam ne njiitëram Macky Sall fa leen a yebal ca Moustapha Niass ngir mu déglu leen yow fa ngay xool Amadou Ba Abdoulaye Daouda Diallo Aly Ngouille Ndiaye ajjuma ba léegi Moustapha Niass déglu na leen ñoom ba pare Abdoulaye Diouf Sarr suba ci talaata ji la koy la dépêche yéene faa foog ne candidat bu gën ci benn bokk yaakaar mooy Abdoulaye Daouda Diallo laas yéen a kaay na ko foo fàttee Mansour Faye am na ñuy sàkk mu nekk seen candidat te mooy yéen a kaay na Abdoulaye Daouda Diallo moo gën ci ñoom de li gën ci génération foot mooy nekk champion bu Sénégal ci wàllu Ligue 1 pro te li ni mel am na stade yéen a kaay ñu ko xamal record yéen kaay moom di ñu xamal ne Al Nasr ci Arabie Saoudi fa ñoo bëgg jënd Sadio Mané boole ko ak Cristiano Ronaldo ndax fi mu toll ni Sadio Mané Bayern ne nañ ko dem entraîneur ba presque loolu la ko wax soxlaawuma la faa nga dem ndax soo fi toogee faa la maan léegi nag laaj bi mooy xana lan moo tax Sadio Mané du xam fulak fayda dem ku ne la bëgguma la kay nga ne ko ma ne bëgguma la waaye moom fa wax na du dem man ma dem ci sunu lamb yéene kaay fekk fa combat Ama Baldé ak Modou Lo le 5 novembre bi di ñëw ci lañ koy bëree loolu baax na ci amateur yi li baaxul ci ab xale lu góor mooy fañ koo fekk mu faatu ci biir ab oto ca Malika cité Sonatel l'observateur moo ñu ko xamal libération na ko faale ci yokkal beneen xale lu góor lu xam juróom-ñaari xat nabari bàjji moom fañ koo fekk mu lab ca hôtel filao ca sali ca piscine ba fa la faatoo mu ngóog